je crois notre pays ne va jamais avancer. on te benn fan ne la ne jour boobu mooy férié mu tombé mercredi wala jeudi balaa ñuy liggéey waat lundi après si on sort tout le monde crie on est pauvre on n'a rien mais c'est à nous de revoir notre manière de vivre pour évoluer notre pays parce que suñ ko deful suuxi doone bi ba léegi dañ fay des. jërëjëf Diop euh, Prosper ñu bàyyi la itam nga introduire dégg nga li euh, Sophie wax ak euh, Benoît laataa ñuy jox kàddu gi tonton ñu bàyyi la ñu ñëwaat ci li nga xam ne mooy li ñu tàmbale woon. la fois merci beaucoup madame Diallo ma wax rek commencé ci Sophie intervention bi mu def euh, Sophie xanaa xam nga ne accueil ci restaurant ak euh, le comportement de serveurs dafay bokk ci liy déterminer yow say nombre d'étoiles say nombre d'étoiles c'est extrêmement important la façon même ñu lay accueillir ak temps bi ngay def yow pour ñëw la woyu monsieur bu désirez yor carnet bu ndaw boobu di ko bind. di ko di wax lan nga bëggee yow. dafa bokk ci li nga xam ne mooy tax yow mooy déterminer seen nombre étoile trois étoiles quatre étoiles nekkul ne da ngay jékki-jékki rek ñun la tuyee cinq étoiles de pour pour confirmer ce que tu dis important. Ah, nit ku ñëw du ko jox boppam. non non non. dañ koy dañ koy déterminer par rapport effectivement ak li ma lay wax nii comportement du personnel infrastructure yi fa nekk ainsi de suite ainsi de suite hmm. set gi hmm. et salaa ça là hmm. pas yooyu yëpp euh, loolu daf koy déterminer nit ku dugg ci restaurant ànd ak moo xam xamuloo fu kii fa mu toll salaamaaleykum maaleykum salaam toog balaa muy toog même boo ko installé mu gis nañ kii kat ñi ngi koy lijjanti rek wàññi na lu bari moom ci lu ko fa indi woon c'est extrêmement important donc pour confirmer ce que pour ñëw effectivement ci euh, li nga xam ne Benoît wax na ko am na solo ah mais benn gis nga le problème que nous avons nous moo di dafa am ñaari slogan yoo xam ne man dama ko gëm te tant que tant que ko du ñu jóge mukk ci ay problème muy deux choses damay wax ne tout ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être très bien fait. Mm-hmm. Mm-hmm. lépp loo jàpp ne yow Benoît mhm. da nga ko war a def mhm. ngalawaay Diop defee ko na mu gënee mhm. beneen bii di tout métier qui s'accomplit sans la conscience devient un tout petit métier ñaar yooyu buñ ko lijjantiwul fii en Afrique dinañu toog di gis-gis pendant soixante ans di ci wax du mujj fenn et li tax ma wax loolu mooy Benoît comment tu peux imaginer dans ce pays édifice yi fi tubaab yi bàyyi woon moom la ñuy ba léegi ñun mënuñoo def lu gën li fi tubaab bi defoon le palais affaires étrangères assemblée nationale euh, euh, comment dirais-je euh, ministre euh, comment dire chambre de commerce et j'en passe yooyu la ñuy tiitaroo leneen lu ñu fi joxante suñu biir liggéeyante suñu biir man ma soxla ko jox Benoît def kii waa jël tabax nangam nangam boo fay dugg sax non tunnel bi nekk Soumbédioune mais ñu ñu bëri bu ñu fay dugg dañuy tari dañuy tari dañuy tari ay saar balaa nga fay romb. Hmm. boo voyagé daw tunnel par 4 kilomètres 5 kilomètres yoo xam ne do quand même xam nga li may wax. Ah pour pour te dire bu tawee kenn dafa dugg ba fii ma toog di wax ak yow ndoxu géej baa ngay rogalaat ci rogalaat. Hmm. maa la wax li ba léegi ndoxu géej baa nga fay rawalaat bu la fa am embouteillage fekkee nag. Eh, da ngay da non c'est vrai man damay damay tiitaa man. su ma nee carax foofu mu ba ambudaas fekk ma fa hmm. mu leer ma ne naa fa def benn trente minutes wala quarante cinq minutes hmm. ah non yàlla rek damay damay tudd yàlla de boobu moo fay gën de kon fi mu ne mën nan faa rey nit te kenn du ko yëg non pas rey nit c'est trop dire hmm. mais mais maanaam sa xel moorul dal moorul dal ci la moorul dal ci ci infrastructure bi infrastructure bi moorul dal sa xel loo xam ne ñun ñoo ko liggéey di ko tiitaroo ñun. fii li fi tubaab yi bàyyi woon moom la ñuy continuer tiitaroo ba léegi. boo demee Gorée il y a plus de 200 ans bâtiment yaa ngi fa ne cocc doo sax gis sax fissure loolu mooy dëgg. moo donc moom la mooy li ma wax damay dem ba finalement j'ai comme l'impression que le sérieux est devenu un luxe pour l'Africain noir. et je dis je dis presse bien mes mots le luxe est devenu un le le le le sérieux est devenu un luxe pour nous. période bii ñu toll nii. Hmm. lan ngay dégg. investiture investiture xuloo guddi xuloo bëccëg depuis le Sénégal est un pays qui est en campagne électorale permanente depuis depuis vingt ans le pays est en campagne électorale permanente on ne travaille pas comment voulez-vous que ce pays-là sorte parce que li ñuy jooy fii accueilloo euh, malaato euh, hôpitaux lépp mooy li nga xam ne les mots yi nga xam ne ñun moom moo nekk suñu réew loolu mooy loolu mooy dëgg gi benn sànq nga ubbi brèche boo xam ne sax ci laa naroon commencé mu nekk une situation ki ma ci à cœur su ma juumee ñu rectifier ma Benoît yaa ngi wax sànq il faut que la jeune sénégalaise se réveille parce que effectivement ñoom ñooy avenir u Sénégal ñoom ñooy avenir Afrique c'est ça la vérité il faut que ñu bàyyi façon bi nga xam ne moom la ñuy dundee avec les politiciens ndax dëkk boo xam ne depuis deux mille nag le pays en campagne électorale permanente et sax li ñuy campagne sax suñ doon gis ñun les bénéfices mu neex mais du gisuñu ko Kër Masaar gee ma dëkk mënuma la wax ñaata der ñoo fa nekk ci tali bi benn du ci tàkk guddi gi tu as l'impression ko ci cimetière nga nekk daan nañ ñu naxee sax ñu njëkk ña au temps du parti socialiste bu ñu mësaan jub ay élections yi ñu taal lamp yëpp léegi sax talatuñ ko sax far mais cest ñun africain su ñu amee soleil douze mois sur douze te mënuñu ñun am capacité intellectuelle ak intelligence su utiliser des des des des lampadaires solaires ba kenn dootul jàmbat kooku il y a problème mentalement intelligent mentalement parlant te lu tubaab wax nit ku ñuul ñu mer non c'est ça la vérité pour wax sànq li ngay wax si la jeunesse Benoît am na lu gën a doy waar loo xam ne maa ngi koy constaté mm-hmm. mu sama cee à cœur maa ngi ciy waxtaan su suma xarit yi ma nekkaloon di ci waxtaan dinañ ba xam li may wax muy l'histoire des nawetaan dañuy wax ne ONCAV mhm. organisation organisme national pour la coordination des activités de vacances loolu la ñu wax de nawetaan yaa ngi doog commencé barki dem ba école ubbee mais dans quel pays nous sommes où est la c'est vrai où est la responsabilité du ministre ministère de la jeunesse où est le responsable du ministre des sports où est la respons où est la responsabilité même. du président yaa ngi dem di seetaani ma chance moom mi ngi soog a commencé. maa ngi ñëw. mi ngi soog a commencé maa ngi ñëw ñi ngi ñi ngi dem di football ndax ñi ngi dem di seetaani. équipe boo jël équipe boo jël am na au moins 4 5 6 ou 7 ñoo xam ne nii ñi ngi soit terminal wala ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ngi def troisième. dëgg la personne n'en parle dans ce pays alors que ñi ngi jooy ni niveau élèves yi wàccee. parce que ñun jamono ba ñuy fubal nawetaan dañ ko daan commencé mois de juin. Mhm. école doon commencé tëj. Mhm. ñu def ko juin. Mhm. def ko juillet. def def def juin def juillet def août def septembre mu jeex. aujourd'hui il n'y a pas dans ce pays là une gravité bu raw école ubbi barki Dembo Ndiaye la 15 nawetaan di doo ko commencé. léegi match yi ñi ngi ci ñi ngi ci phase de poule boo paree phase de poule yi da ngay dem ci phase euh, euh, euh, départementale soo paree départementale dem ci phase régionale ça veut dire que fii ak cinq mois mhm. laa leen li ñu waroon jàng xale yaa ngi diggante dem entraînement parce que nawetaan doo ko fubal te entraîné woo mhm. waaw yow dix-sept heures dix-huit heures yaa ngi entraîné mhm. guddi gi yaa bëccëg yeneen équipe yi ñu ngi fubal wala ngeen am nocturne wala semi nocturne ñii bàbbeeku nañ def club de supporter dem supporter ji ñii bàyyi nañ seen ay kaye dem parce que si équipe la ñu bokk dañuy joué ji et eh, xam loolu lu ma ci gën a metti. c'est pas normal. c'est pas normal. c'est pas normal. personne n'en parle dans ce pays. où eh, c'est-à-dire aujourd'hui on coordonne quel acte de vacances on coordonne puisqu'on est en année pleine année scolaire lan la ñuy coordonner organisation nationale pour la coordina organisme national pour la coordination des activités de vacances muy ONCAV nga dem Dakar mu ne ODCAV départemental nga dem nga régional muy Dakar lan la ñuy coordonner école yi ubbi barki dem boo njaay stade yaa ngi ba pare sans compter nag ñàkk njëriñ gi ci nekk mooy rayante bi guddeeg bëccëg mm-hmm. rayante bi guddeeg bëccëg ñi ciy fubal amuñu ci dara ndax ñun fubal nañ nawetaan ba bàyyi amuñu musuñu am prime mm-hmm. amuñu ko club bi am antanuñ ko mm-hmm. club yi nga xam ne ñooy fubal ñoom bu ñu paree ci prime de match passé wul vingt cinq trente mille francs pour l'association personne n'y gagne à part les personnes n'est-ce pas qui qui tournent de ce mouvement là avec la complicité effectivement ñu ne ñun xale yi dañu war a jàng xale yi dañu war seen niveau dafa war a jóg et ainsi de suite ainsi de suite te soo fa demee malheureusement ñi nga xam ne ñoo dëkk dans les quartiers faible muy la banlieue fa la gën a ullee ñaayee doo dégg mu ASC point E ASC Fann résidence ASC non ñoo ñu koy jàng seeni doom ngi ci école yi gën a côté di jàng donc loolu mu jaaxal ma ci dëkk boo xam ne dañuy wax ne dañu bëgg xale yi jàng ñu koy nawetaan a ngi doog on, on coordonne quelle activité de vacances non il faut qu'on soit sérieux donc loolu moom vraiment ça me tenait à cœur pour ma mën ko wax maintenant. na ñëw ci accueil bi ak rapport heurté yi. c'est voilà nga ñëw ci euh, accueil ak rapport heurté. Mhm. moom laa commencé sànq. Mhm. mais Benoît le problème que nous avons avec euh, au niveau des hôpitaux par exemple. Mhm. c'est même pas affaire ay médecin wala affaire yooyu noonu. c'est la personne bi romb euh, yor yor dara nga xam ne kii dafa néew doole. oto dérapé dal ci kawam. nga gàddu dugal ci biir hôpital ñooy la non duñ ko laal. Mhm. duñ ko laal cest loolu c'est même pas de la responsabilité ñi nekk ci hôpital bi c'est-à-dire c'est système de sanitaire boo xam ne ca ca kaw la jóge moo baaxul ndax quelque que soit alpha war nañ la mën a toppatoo yow on sauve ta vie d'abord parce que ki tëdd tey xëy na sax ndiggam président de la république mi ngi ci. xëy na kii kii nii mi ngi jur koo xam ne ëllëg mooy génn Sénégal ci guuta bu mu nekk mooy def la fierté du du peuple sénégalais parce que c'est-à-dire des réflexions beaucoup plus profondes te bañ a gis nit ki tëdd nii rek. Mhm. parce que que quand bu ñu demee boo xam ne bu ñu demee ba ne ku fi feebar yaa ngi ci loxo yàlla a problème. mais loolu mooy danger yàgg na fi exactement Benoît c'est c'est ah que 60 ans après les indépendances. Hmm? mu mënaluñ ñun suñu bopp dara hmm? mënaluñ suñu bopp dara ñun on se rappelle yàggul dara il y trois ans quatre ans cinq ans je crois Dakar xaw na fi dee deeg mar ndax benn téew bu tojoon kër Momar Sarr hmm. ñu fay xëy guddee matin midi soir koo ci wax mu fëgg dënnam arrière waaye bi si bi ci président Macky Sall wooyee président euh, Hollande soixante soixante douze heures après ou une semaine après ñooñu mooy sauvé dakaar ba léegi ñu naan dakaar euh, am na sax lu ko journaliste doon wooyee on a fini avec les émeutes de de l'électricité on on va toujours vers les émeutes de l'eau mm. ci capitale boo xam ne 60 ans après indépendance. Mm. benn tuyau bu toj Kër Momar Sarr mm. moo ñu naroon delloo ñun mar ñun. nu ah, woote ak nu woote ak François Hollande moo si jot. jël tuyau ba def ci eh, def ci avion. indi ko ñu monté ko ba ba fi ma toog jox ak yow. ñun Sénégal amu amuñu tuyau. maa la yëgal lii. <laughs> nekk nañu fa pendant mois ou 4 mois. Kër l'exemple de la Sonacos est là nuy tete l'intervention trois vingt euh, troisième bi ma bi nekkoon euh, à côté mais kon kenn waxatu ko da doon gën a ñaaw ñun ci dëkk boobu la ñu nekk et te am nañu fierté bu toll ne way on est indépendant on est indépendant on est indépendant donc ma wax ne euh, dama téo bi daa seer wala xaalis bu ko jar moo fi amul loolu yëpp ay question la ou alors ah, on n'est pas assez intelligent pour nous dépanner ou alors on est carrément pas assez intelligent pour nous dépanner li may wax ñi may seetaan xam nañ ko Dakar toog na fi pendant trois mois quatre mois yoo xam ne xaw nañu dee ak mar. maanaam doon amuñu am qualification liggéey kii kii. papa ñun puso sax defaruñu ko. moo tax formation bi ñu doon wax am solo. ah may wax encore une fois. li fi metti ñu war ko waxtaanee. <laughs> muy accueil bi ñuy wax. Mhm. dëgg la. Mhm. je prends l'exemple de l'autoroute à péage ñi fa jaar. ñi fay jaar di ko emprunté guddeeg bëccëg parce que effectivement boo demee si rn bi boo demee si RN1 les conditions ne sont pas réunies pour nit ku bëggul jaar ci autoroute à péage jaar RN1 les conditions ne sont ne sont pas réunies pour la bonne et simple raison tali ba baaxul bu dee guddi lëndëm na amul lampe il paraît que dafa bokkoon ci clause yi tubaab bi tegoon ne il faut que ngeen délaisser rn bi pour ñu mën a jël effectivement euh, autoroute à péage bi parce que tant que def boo leen ko defee ni mu war mel. ñun su boobaa dañuy yéex amortir ndax ñëpp fa la ñuy jaaree ji donc il faut jaar fa metti pour nit ñi di jaar autour à bi mais loolu amul problème. mais accueil bi laay wax. parce que man su fekkee ne dama dëkk foo xam ne nii je suis obligé de l'emprunter ñu ne ma am na carte yoo xam ne boo ko jëndee dangay jaar ci voie boo xam ne dafay gaaw ma ma jënd ko man def ci la ma ca def ma mën koo ma ñàkk ko mën ma def ci. mais a chaque fois que nga dugg ci rayon boobu yaa ngi fay fekk koo xam ne daf lay gàllankoor pendant presque trente minutes mënuloo dem yow. mënuloo dem loolu ban offre de service la alors que man carte bi ma jënd c'était pour aller vite finalement je vais même pas vite puisque heure bu puisque man bu ma fa duggee am naa quatre-vingt-quinze pour cent de malchance fekk fa koo xam ne moo may bloqué man